C'est bon C'est bon Je remercie du et même dans les airs, presque suicidaires, se jettent quotidiennement et à bras perdus dans un hypothétique voyage vers un Eldorado mirage européen ou américain. Cet enjeu essentiel est la capture du dividende démographique, en des mots moins savants, de l'ambition de fournir des emplois décents et en grand nombre pour utiliser la force de la jeunesse sénégalaise qui constitue les trois quarts de notre population. En effet, selon les derniers chiffres de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, 75 pour cent des Sénégalaises et des Sénégalais ont moins de 25 ans, dont 42 pour cent de cette frange ont moins de 16 Le troisième dernier enjeu qui rend notre moment est la question centrale la souveraineté économique dans ce de crise et de grands bouleversements. Cette souveraineté économique peut s'analyser de manière simple sous l'angle de ces deux piliers que sont la souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique. 63 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, malgré les efforts louables des présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall, le Sénégal n'arrive toujours pas à nourrir suffisamment ses fils et ses filles de ces énormes potentialités agricoles. L'accès à une énergie bon marché reste un luxe, même pour les privilégiés, ménages comme entreprise Mes chers compatriotes, La séquence que nous vivons est sérieuse, même décisive pour l'avenir de notre pays. Elle exige que soit choisi un homme d'État, un homme d'expérience, qui est avantageusement blanchi sous le harnais dans le milieu politique, dans les plus hautes sphères de l'État, dans l'opposition comme au cœur du pouvoir, au plus près des préoccupations de nos concitoyens et qui ait une vue précise de ce qu'il faut pour diriger notre pays. Ayant parcouru à plusieurs le Sénégal de Bakel à Dakar, de Saint-Louis au Cap Skirring, de Salémata à Demet. Ce ne sont là, bien sûr, que des exemples. Mes et au nom des responsabilités, de présenter ma candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. la leur cette élection sera très disputée. Qu'Allah choisisse celle ou celui qui est capable de conduire le meilleur projet pour notre cher pays, le Sénégal, dans la paix, la stabilité, l'épanouissement de nos populations. Pour ma part, j'ai décidé de présenter ma candidature car je crois modestement avoir le profil, la personnalité, l'expérience et le programme adéquat. Mes chers compatriotes, Je voudrais d'abord parler de mon projet, du projet que j'ai conçu avec mes équipes pour redresser la barre du pays et installer une dynamique vertueuse centrée sur la gouvernance humaine, efficiente et efficace. En premier lieu, notre projet pour le Sénégal est pensé pour tenir compte des aspirations profondes des franges vulnérables de notre population. C'est laissé pour compte que j'ai pu observer, entre autres, durant mes nombreux déplacements dans le notamment à Kédougou. Kédougou où depuis quelques mois, je suis établi comme avocat pour vivre de plus près la réalité de la vie sociale d'une zone immensément riche mais étonnamment pauvre. Ce paradoxe, je l'ai touché du doigt, dans une parfaite horizontalité en côtoyant au quotidien nos compatriotes les plus démunis. Mon projet prend racine dans cette rage de vouloir changer les choses de contribuer à participer à un mieux-être de ces populations dans un pays où régneront la justice, l'égalité des chances, l'inclusion, la démocratie, la vraie, et non pas le rituel démocratique actuel, enfin la paix. Même si l'énumération n'est pas exhaustive, à la place de la stigmatisation, de l'exclusion, du tribalisme, du terrorisme verbal, des invectives, de la boue et de la gadoue, de la pensée unique, du terrorisme intellectuel, bref, de la violence sous toutes ses formes. Je suis le candidat d'une gouvernance centrée sur la réconciliation nationale, autour de notre socle de valeurs communes, de Kersa, de Djom, de fit, d'abnégation, de persévérance et de solidarité, bref, de plus d'humanité, dans ce que le concept a de plus beau. Mes chers compatriotes, La pierre angulaire de mon projet, autrement dit, l'ossature de mon programme, est le renouveau de la agricole et de la souveraineté alimentaire. La COVID-19 et les tensions géopolitiques actuelles et futures ne nous laissent le moindre Il faut arriver à nourrir sa population pour échapper au péril d'un effondrement généralisé. Je crois modestement pouvoir en parler grâce à une expérience accumulée sur plusieurs années. comme conseiller municipal depuis 1996, puis maire de la ville de Guinguinéo pendant 12 ans, conseiller régional, député, ministre, ministre d'État et Premier ministre. J'ai beaucoup voyagé à l'intérieur du pays, visité près de 240 000 hectares de terres arables dans le nord du Sénégal, ces vastes étendues de terre de la Casamance, du Niani, du Boundou, du Ndiambour, du Djolof, du Baol, du Fouladou, du Kayor, du Fogny, du Kassa, du Pakao et du Sine Saloum. Les, les priorités absolues de notre politique économique seront l'agriculture et la transformation des produits agricoles pour créer de la valeur ajoutée. Il est en effet évident qu'il faut sortir dès maintenant de cette économie duale où le secteur primaire, dont le pivot reste l'agriculture, est consommateur de main-d'œuvre, mais peu compétitif et peu productif. Un secteur secondaire encore évanescent, faute d'industrialisation forte. un secteur tertiaire dominé par le poids écrasant de l'informel et des services extravertis. J'ai l'intime conviction que notre salut viendra de l'agriculture, plus précisément de la réorganisation et de la rationalisation de la filière agricole. L'approche consistera à ériger un grand domaine régalien de l'agriculture et de l'élevage. On dit qu'un pays fait son histoire, mais subit sa géographie. Le Sénégal est béni car nous avons les quatre intrants nécessaires pour booster notre agriculture et notre élevage. une véritable industrialisation si à l'éclosion de nos si belles potentialités. Je veux parler, la force de la jeunesse qui sera canalisée et orientée vers les projets des métiers agricoles de l'élevage, de l'ensoleillement avec de 325 jours de soleil, des vastes terres arables comme je viens de l'affirmer, Quatrièmement, près de 40 milliards de mètres cubes d'eau de surface renouvelable, en particulier avec deux heures de pluie estimées par l'ASPID à plus de 132 milliards de mètres cubes par an. Je pense à une remise à plat totale des conservatismes dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage que je pratique au quotidien en tant que paysan dans un village qui s'appelle Jagan Barka et petit-fils de paysan et avec l'expérience cumulée précitée. Je sais où mettre le pour amorcer le, la véritable révolution agricole dont le pour atteindre la souveraineté alimentaire à travers une meilleure gouvernance. Si les Sénégalais me font l'honneur de m'élire en février 2024, dès mon élection, j'organiserai sans délai les assises nationales de l'agriculture et de la alimentaire avec tous les acteurs et partenaires du agricole. Cette révolution se fera autour de l'érection d'un système optimal de coopératives des agriculteurs éleveurs et d'une bancarisation efficiente grâce à la banque agricole qui jouera véritablement son rôle en milieu rural. La loi sur le domaine national doit être modifiée et adaptée aux réalités actuelles, tout en garantissant à nos populations rurales le maintien et le renforcement des acquis relatifs aux droits fonciers et domaniaux. Je ferai naturellement d'autres propositions concrètes et chiffrées pour détailler la faisabilité de tout ce qui précède, Inch'Allah. projet politique sera une meilleure gouvernance du secteur extractif des mines, du pétrole, du gaz que nous nous à exploiter. Il s'agira de faire en sorte que les populations qui profitent de l'exploitation des ressources naturelles, dont l'article 25 alinéa 1 la Constitution leur confère le patrimoine. Les ressources Comme je l'ai indiqué plus haut, il est en 2022 16 tonnes d'or dans la région de pendant que cette région demeure l'une des plus pauvres, voire la plus pauvre du pays. 16 tonnes d'or sont extraites de notre sous-sol, alors que nos budgets, y compris le comptoir national d'or, n'arrivent pas à mettre la main sur un seul gramme d'or. Il est tout aussi insolite que la route de Bembou menant au site d'or de Sabodala, longue de 85 km, reste encore non bitumée, alors que toutes ces tonnes d'or sont extraites de ce sous-sol. elle est où la responsabilité sociétale d'entreprise L'or n'est d'ailleurs qu'un exemple parmi d'autres. La même situation prévaut. En effet, pour les licences de pêche, le zircon, les phosphates, le pétrole, le gaz et j'en passe. Il devient alors impérieux d'aller au-delà des pétitions de principe, des vœux pieux pour un virage stratégique sur l'appropriation de ressources naturelles et sur leur gouvernance au profit des populations. Ce sera l'un des axes si les Sénégalaises les Sénégalais me font l'honneur de m'élire président de la République au soir du 25 février 2024. Cette ambitieuse à un la politique de transport, notamment la revitalisation du chemin de fer au niveau des terroirs du pays. L'actuelle politique de transport de masse centrée sur le triangle Dakar-Thiès-Mbour est une bonne bien. Mais il s'agit d'aller au-delà d'opérer un véritable désenclavement du pays pour relier, pour relier les zones de production aux zones de consommation, fixer les populations locales dans leur terroir en acheminant les intrants par le train, retrouver la joie du train qui siffle. Monsieur Baba Goumbal président, sait de quoi je parle. De l'activité autour des gares traversées le long des corridors, du Dakar-Bamako, de l'axe Thiès-Saint-Louis, Saint-Louis-Richard-Toll-Dagana, Podor, Ndioum, Matam. Du train qu'il faudra construire sur l'axe Tambacounda-Kédougou, Tambacounda-Kidira-Bakel-Kanel-Matam, Tambacounda-Kolda-Ziguinchor, pour exploiter de manière optimale les ressources de la belle et verte Casamance. Enfin, du train pour asseoir la véritable révolution industrielle du Sénégal par l'exploitation de nos 720 millions de tonnes de fer de la Falémé, un projet structurant en retard de plus de 40 ans. Mesdames et messieurs, mes chers Le troisième axe de mon projet concerne la réforme de l'administration sénégalaise pour placer le mérite au cœur des décisions. La République est au centre de mon projet et avec elle la bonne gouvernance institutionnelle. Ces douze dernières années, un profond malaise s'est installé au cœur du pacte républicain et de la perception de la justice au premier chef. Celle-ci, et c'est l'homme de loi qui vous parle, est un pilier, sinon le pilier essentiel sur lequel repose tout l'édifice de Si la justice s'effondre, la justice s'effondre, tout s'écroule. Si la justice est chahutée, nos libertés sont menacées. Si la justice est contestée, nos relations humaines sont sauvages. Il faut remettre la République à sa place, revenir à l'orthodoxie du droit et de l'état de droit, du respect des procédures, de la jurisprudence et du droit positif. Mon projet proclame Debout la République. Oui, Debout la République, forte mais humaine. Oui, debout pour le respect de l'esprit citoyen. Oui, debout pour la soumission de l'État au droit. Oui, debout pour la conformité de l'État au droit. Oui, debout pour une justice indépendante et moderne, proche du peuple au nom duquel elle est rendue, tournée vers un avenir radieux. Oui, debout pour une justice sans justicier. Oui, debout pour une justice qui ne tremble pas. mais chers concitoyens, je mettrai en œuvre dès mon accession à la présidence de la République une grande réforme administrative et territoriale qui épouse les nouvelles dynamiques démographiques du pays. À ce titre, la nouvelle carte administrative du Sénégal accueillera les régions de Podor, de Bakel et de Mbour pour faire ressortir les potentialités des zones et rapprocher davantage l'administration des administrés. Mes chers concitoyens, je veux une république où la méritocratie sera le seul social où l'enfant du village ou de la banlieue de Kabatoki à Kaolack aura les mêmes chances que celui de la grande ville, où l'agriculteur de gent ou de Fongolembi aura les mêmes chances que le maraîcher de Moro, où la rizicultrice de Cabrousse ou de Keyoto aura les mêmes rêves de grandeur que le promoteur immobilier de la Grande Côte. C'est cela le Sénégal que je veux que nous bâtissions ensemble. C'est la raison pour laquelle je suis le candidat de la réconciliation nationale. Ce La nation sénégalaise est aujourd'hui fracturée dans son unité. Ma première mission sera de réconcilier les Sénégalais dans leur diversité. C'est un impératif catégorique pour notre stabilité et notre sécurité collective, notre survie en tant que nation. Dans ce sens, j'organiserai le congrès de réconciliation de la nation sénégalaise, dans lequel aucun segment de la nation ne sera exclu. Au cœur de ce dispositif de réconciliation nationale seront nos vaillantes forces de défense et de sécurité dont je salue le courage, la compétence, l'esprit républicain, le dévouement à la tâche. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, main dans la main, épaule contre épaule, brique par brique, bloc par bloc, nous allons construire ce pays. Il va sans dire que le secteur de l'éducation, mais surtout de la formation professionnelle, sera un domaine où l'accent sera particulièrement mis. En revoyant les curricula axée sur la formation à la citoyenneté, les savoirs et le monde du XXIe en s'apesantissant sur les métiers du pétrole et du gaz, sur des compétences pratiques, des know-how, savoir-faire. Au-delà de l'approche quantitative des chiffres, il s'agira de changer de paradigme, de modèle du système éducatif où le finançant, en le finançant davantage sur nos fonds propres pour avoir une vraie marge de manœuvre. Mes chers concitoyens, À côté de l'éducation, l'autre souffrance de la population actuelle, c'est la santé. Nous souffrons toutes et tous de l'inefficience de notre de santé. La COVID-19 nous a administré la peur. Même si les pouvoirs publics ont fait des efforts louables, force de constater que le plus profond que cela. Figurez-vous, des causes de euh, la mort de mes parents du récent, dans le récent incendie de Berkeley, qui a décimé presque toute une famille, l'absence d'un plateau technique médical pour la prise en charge des grands brûlés, c'est brûlés au troisième degré. Chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais sait que la survenance d'une maladie cardiovasculaire de type diabète, hypertension artérielle, cancer, insuffisance rénale plonge toute la famille dans la pauvreté à cause du coût du traitement, d'ailleurs souvent inexistant dans nos structures sanitaires dans les régions. Quand on sait qu'un Sénégalais sur trois souffre de l'hypertension la santé, le financement efficient et efficace du système de santé, adossé à une réorganisation, à une réorientation optimale des ressources publiques du système de protection sociale, sont des points très importants de notre offre politique. Qui dit protection sociale dit protection des femmes. La femme sénégalaise représente la matrice de notre nation, la gardienne des valeurs et des vertus cardinales de notre peuple. Elle est la résilience et la, la solidarité nationale. Que seraient nos des campagnes de nos villes et de nos quartiers populaires sans la femme sénégalaise combative, ingénieuse et sociale. Mieux, dans le secteur de développement, elle constitue l'avant-garde de notre peuple. Ses performances dans nos écoles, universités et dara sont là pour l'illustrer. J'aurai une attention particulière sur la femme sénégalaise dont l'engagement, le dévouement, l'intelligence et l'ingéniosité sont des atouts fondamentaux pour le renouveau et le progrès nation. Nous y la présentation de notre À côté du traitement médical, je mettrai l'accent sur la prévention, notamment en développant et en encourageant la pratique du sport dans toutes les disciplines, notamment celles qui permettent au Sénégal de se hisser aux cimes les plus, des plus belles nations de sport. Je compte faire du sport un puissant levier d'épanouissement de notre jeunesse et un véritable vecteur de diplomatie. Mesdames et messieurs, au gré des affectations de mon papa, à qui je souhaite que j'ai de meilleur. à ma chère et tendre mère, qui est l'épine dorsale de ma vie. Je prie Allah qu'Allah continue de lui accorder une longue et belle vie. En ce jour spécial où je décide de briguer les suffrages de mes concitoyens, ce jour important de ma vie, disais-je, je vous affirme, mes chers compatriotes, que je me plais à rappeler que je suis né à Kaolack, que j'ai grandi à Guinguinéo, ma ville de cœur, puis à Kaolack, puis à Oussouye, puis à Diourbel dans le Baol et à Dakar et réalisé mes humanités à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et je salue la présence de mon professeur El Hadj Mbodj. En définitive, je suis un fils du Sénégal que je parcours depuis une cinquantaine d'années d'est en ouest et du nord au sud. J'ai plaidé comme jeune avocat dans la quasi-totalité des cours et tribunaux de nos régions. J'ai ainsi touché du doigt les problématiques auxquelles étaient confrontées nos populations hors de Dakar et dans J'ai côtoyé le peuple sénégalais dans toute sa diversité, dans sa résilience quotidienne, sa belle résilience dans ses combats quotidiens, dans ses moments de doute, ses moments de folie. Durant les trois années où j'étais Premier ministre du Sénégal, jamais n'ai-je passé un week-end à Dakar, car j'ai toujours voulu vivre avec les Sénégalaises et les Sénégalais leur situation sans phare ni filtre, directement dans le contexte en veillant d'y apporter des solutions efficaces, J'ai une pensée respectueuse et fraternelle envers nos vaillants compatriotes de la diaspora sénégalaise qui contribuent de manière décisive au développement de notre pays. Leurs transferts annuels représentent plus de 10% de notre PIB, plus que l'aide au développement. Notre diaspora peut contribuer plus et mieux à notre développement, à la condition d'être mieux écoutée, mieux considérée et mieux insérée dans nos préoccupations de développement. Je m'emploierai Le Sénégal est un pays de foi, musulmane comme chrétienne, disons un pays d'une laïcité positive. C'est pourquoi j'ai toujours veillé durant mes 40 années de vie politique à entretenir d'excellentes relations avec nos autorités religieuses, ciment de la concorde de la nation sénégalaise. J'entretiens de bonnes relations avec tous les foyers religieux du pays, talibés Mouri et disciples de Serigne Abdul Khadir Mbake. Je suis très lié à la famille de Mamsidi El donc certains des membres et pas des moindres sont mes parents. Je salue le sens et la portée internationale de la Faïda Tidiane de Cheikh al-Islam Maulana Baynas, dont mon grand-père était un des disciples, des premiers disciples. Je magnifie l'esprit de Mam Boukounta de Ndiassan et de Mam Sidna Limamoulaye. Je voue une immense admiration pour Sidna Issa Roulaye et une grande affection pour le clergé dont l'éclat a été fort bien incarné par le cardinal Yassine par le cardinal Théodore Adrien Sarr, par feu Monseigneur Maxime Colli de Ziguinchor et aujourd'hui par Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Je leur transmets mes respectueuses salutations. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, tout ceci me fonde à garder l'ambition de servir mon pays, de créer du lien, de fédérer les énergies positives, de décloisonner les initiatives, de libérer toutes les belles et extraordinaires potentialités de nos enfants, de Comme disait Lamine Gueye, j'aime ce pays d'un amour qui m'arrache les larmes. Et c'est sur cette note d'espoir que je vous tends la main, hommes, femmes, de tous âges, de toutes conditions sociales, pour redresser la barre ensemble en 2024 et replacer au cœur de notre pacte républicain une gouvernance humaine, efficace et efficiente. Vive la République, vive le Sénégal.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 bokk ci élection présidentielle li nga xam ne incha allah buñ ci yàlla yóbboo ñu ngi ko programmé ci le 25 février 2024 li tax ma bokk ci nag dama xalaat ne am naa jaar-jaar bi ndax diggante 1978 ak tey jàpp naa ne acteur politique la nekk naa conseil municipal ci suma dëkk bi ñuy wax Guinguinéo ñu ngi nii ñëpp nekk naa fa maire fukki at ak ñaar nekk naa conseiller régional Fatick nekk vice président conseil régional nekk conseil régional Kaolack nekk porte parole président nekk conseil spécial président nekk ministre conseil président nekk ministre nekk ministre d'État nekk député nekk premier ministre réew mi wër naa ko ci sens yépp boo jógee Dakar dem ba Oussouye nga jógee Saraya ñëw ba Ndar nga jógee Ndar dem ba Salémata wala nga jógee Matam dem ba Cap Skirring def naa ko plusieurs fois bi ma nekkee avocat bu ndaw déjà tribunal du Sénégal yëpp taxaw naa fa rawatina bi ma bokkee ci gouvernement di ànd ak maître Abdoulaye Wade wala may demal suma bopp kon nag xam naa réew bu baax. gox bu ne xam naa na muy doxee ak lañ fa war a yokk lu wuuteeg la fa nekk at yi ñu génn dama demoon dëkk Kédougou boo jógee Dakar dem Kédougou daanaka da ngay traversé réew mi yépp en tout cas da nga traversé li ëpp ci réew mi bi ma demee foofa gis naa ne mooy gox bi ëpp koom ci Sénégal bu ñu ko nattee ci li nekk ci sous-sol bi waaye mooy dëkk bi nit ñi gënee sonn ci senegal ndax loolu ñu fay jëlee di koom amul li tubaab wax retombée ci population yi réew mi xam ngeen xibaar bi fi am bu yàggul muy suma mbokk yooyu dëkk Derklé famille Babou juuf am lakk gu fa am ba fu nit ak benn yi nga xam ne gaañu woon nañ ci am ci ay gaañu gaañu juróom-ñett yi yàlla moom la seen bakkan te loolu dara waralu ko lu dul rek amuñu jumtukaay yu leen faje amul sax garab yu leen faje waaye yàlla nag mu ñëw dogalam ñu leen di ñaanal ndax Babou Diouf mooma suma mbokk bu jege la euh, ci wàllu kër docteur lu bari war nañ ko fee tabax lu baree bari gouvernement bi def na ay effort Kédougou am na hôpital bu bees bu mag Touba am na ko Sédhiou am na ko Kaffrine am na ko mais hôpitaux yi dafa war a wër réew mi ndax bala nga naan naam ne fa bokk na ci lu war a jiitu li gouvernement di def bokk na ci njàng mi ak njàngale mi ak waat wàllu wér-gu-yaram gannaaw ba euh, li njóobeen yi gën a bëgg jàlle maanaam mooy li ñuy def ci biir yi ñun nag bëgg nañu bu ñu yàlla dimbalee ba sénégalais yi jox ñu confiance 25 février 2024 ñu gën a dugal suñu loxo ci mbay mi waaye du ñu yem rek ci niñ koy defee ci jamono yi bëgg nañu delloo siwaat coopérative gox bu ne xam nañu ñi war a ànd bokk koppe comme ni mu daan amee bu njëkk bëgg nañu la ñuy bay mu bañ a yem si rek nañ koy jëlee ci suuf si waaye ñu transformer ko ba nga xam ne dina gën a am valeur damay joxe souvent exemple bu simple bu gerte gerte caaf kilo gerte caaf mu gën a cher kilo gerte kemb boo ko transformé def ko tigadege kilo tigadege moo gën a cher kilo gerte caaf ainsi de suite donc bëgg nañu mbéy mi ñu def ci loxo bu baax a baax a baax ak transformation des produits agricoles bëgg nañu wàllu njàngameeg njàngale mi ñu gën a yokk école yi waaye ñu xoolaat programme yi bu baax a baax ndax ba ñuy jàngal l'Europe barbare les carolingiens les mérovingiens ba léegi xamuñ loolu lan la ñu indil lan la ñu jëriñ kon nag war nañu xoolaat baax programme yi curricula yi war nañu gën a jàppale jigéenu senegal xam nga li ñuy wax économie sociale et solidaire suma mbokk yi dëkk ci àll bi xam nañu ne li ñu joxee dépense quotidienne ci ville yi amul ci village yi ñaare gannaaw ba ñu récolté jëlee lañu ñu béy ca tool ya indi ko ci sàq yi li ci des jigéen yi koy toppatoo ba léegi troc mooy échange bi ñuy def diggante ay marchandises loolu muy am ci àll bi ba léegi te bu euh, koom bi xase dugg ci sàq yi jigéen ji mooy gérer kër gi mooy jëlee dugub jiñ bojjul bojj ko bu ko bojjee mu nekk pepp mooy dem échanger ko ak jaaykatu jën bi wala jaaykatu leneen lu mën a doon pour mën a euh, wut ci rënd pour kër gi pour mën cee jëndal ay yére wala ay kaye pour doomam pour mën sax di bokk ci natt yi ñuy def ci biir dëkk bi ndax natt yooyu moo tax jigéen ñi ci àll bi di wut ay toolu béyum dër wala di yar petit élevage ay ganaar wala ay béy wala leneen donc ñooñu ministère de la femme war na leen di jàppale indépendamment de leur appartenance politique du rek jigéen bu am carte rek lañ war a jàppale dañu war a jàppale ñépp parce que la république et là pour tout le monde buñ ci jógee suñu mbokk yi nekk bitim réew li ñuy contribuer ci produit intérieur brut maanaam ñuy nattee koomu réew mi euh, ñoom li ñuy indi ci réew mi moo ëpp sax li nga xam ne moom la ñëw suñu partenaire au développement yi di dimbalee kon nag war nañ leen di leen déglu di leen yombalal seen euh, nekkin ak seen ay transfert yu ñu def ci biir réew mi li gën a doy waar nag mooy li xew jamono yi xale yi xëy rek yaakaar ne pour nga tekki il faut nga jël bateau wala nga jaar ci désert bi pour dem en Europe te mu di leen jural musiba yu rëy ñu ngi jaalee képp koo xam ne mbokkam des na ci yooyu leen wax ne incha allah suñu yàlla dimbalee ba ñu toog danañ jël ay mesures rëy rëy rëy ci wuutal xale yooyu ay liggéey munuñ ko nag natt ci danañ créer cinq mille emplois wala cent mille emplois wala cinq cent mille emplois loolu moom mënaguñ ko wax waaye liñ mën a li ñu wóor bu wóor di daal mooy danañ gën a taxaw ba suñu doomi réew des ci réew mi gënal leen génn réew mi dem euh, dinañu fexe aussi ci wàllu jubóo gi war a am suñ biir parce que réew mi ku fi nekk diggante daaw jéeg daaw ak ren xam nga ne réew mi dafa am fracture xam nga ne réew mi daanaka dafa am ñaari camp yuy affronté wu kenn ci juwul ak sa morom kenn ci ñemu la wax ci kanamu koo xamul ndax yaakaar nga ne boo ko defee rek ci suba nga ñu woo la police wala ñu woo la gendarmerie loolu lañ bëgg mu dakk Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar yàgg nañ koo dégg warul am xàjj ak seen kumba am ndey ak kumba amul ndey war naa génn ci réew mi ñépp bokk ndey bokk baay ndax boo ko càmbaree bu baax ki nga yaakaar ne sa noon la tey fekk na moo la gën a jege ki nga yaa jàpp ne mooy sa xaritu tey ci deret ak ci lépp waaye ñàkk waxtaan mooy indi loolu kon nag war nañu indi waxtaan muy nekk système de règlement de différends <coughs> suñu force de défense et de sécurité yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ndax bu réew mi amee jàmm kenn ku nekk mu ne nelaw ba yàndoor c'est parce que ñu ngi def seen liggéey bëgg nañu incha allah loolu ñu gën leen ca jàppale gën leen ca dimbale euh, bëgg nañu aussi lu nit di liggéey ak foo ko mën di liggéeyee ci Sénégal nga mën cee gis sa bopp ba nga bañ a xalaat ne euh, génn réew mi mooy mooy solution bi génn réew mi du solution bépp du benn solution ci domaine chemin de fer parce que chemin de fer daf di activité boo xam ne li ñi xam saxaar bu baax xam ne li saxaar mën na transporté amul benn mode de transport bu ko mën li ñu def euh, ci transport euh, BRT TER baax na trop waaye mën nañ ko yokk fexe ba saxaar gi dawaat diggante Dakar ba ndar jógewaat ndar wala mën na dem ba Matam jóge Matam dem ba Bakel jóge Bakel dem ba Kidira jóge Kidira ñëw Tamba jóge Tamba dem Kédougou jóge Tamba dem Sédhiou dem Kolda dem Vélingara jóge Dakar mën a dem Mbour jóge mbuur ñëw Fatick jóge Fatick dem Kaolack jóge Kaolack dem Guinguinéo jóge Dakar dem Thiès dem ko Gossas dem Guinguinéo réew dem Birkilaan dem Kaffrine dem Malem Hodar Koungheul dem Kidira dem Tambacounda dem Kidira loolu euh, mën nañ ko def ndax am nañ lu mat sept vingt millions juróom ñaari euh, téeméer ak ñaar fukki millions ci ay tonnes euh, ci fer boobu nga xam ne mu nga Falémé te kenn laalagu ko kon nag am naa yaakaar ne sénégalais yi ak sénégalais yi Euh, mën nañoo dunde yaakaar ndax li mën a defar réew maa ngi fi te am naa yaakaar ne sama jaar-jaar may na ma ma ne mën naa nekk président de la république bu ma ci àndee ak sénégalais yeeg yi am xam-xam te bëgg seen réew te loolu mu ngi ci dëkk bi. ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di. sant bu baax di gërëm professeur El Hadj Mbodj mi nga xam ne mu ngi defal mu ngi ma sagal teewee bés bi ndax ba may jàng nekk université Dakar nekk deuxième année de droit daf ma yore woon droit administratif te boobaak léegi yàgg na te boobaak léegi suñu diggante dara yàquwu ci di gërëm bu baax Moustapha Mamba Guirassi bi nga xam ne moom ma dalal fële ca Kédougou mooy sama njaatige Kédougou waaye dafa ma faa bàyyi ñibbi si Dakar di gërëm suma xarit yi nga xam ne depuis soixante ans soixante ans borom sikki mu weex bi ngeen gis tudd Ahmed Amara Fall depuis soixante ans maa ngi may ànd ak El Hadj Baba Goumbala ak sama xaritu naar bi nga xam depuis soixante ans ñooy ànd moom itam Jamal H Ali euh, Kaliña di ma nijaay ak suma xarit nekk biir salle bi j'en ai vu Madiaw Gueye depuis 60 ans aussi ñooy ànd ñoo bokkoon CI école primaire euh, ñi fi nekk ñëpp ku lim desal maa ngi leen di sant bu baax a baax euh, Fatma Fall suma benn mag la bu nekk ci bi dégg naa baatam léegi di leen nuyu bu baax ah Thierno Madani Tall ñoo na euh, Thierno Macky Tall ñoo na fi sànq. Euh, malheureusement dafa am benn mariage bu muy dem moo tax mënu woon fekkee yëf yi maa ngi nuyu Maguette Ba bu Guinguinéo euh, di nuyu jóge Guinguinéo di nuyu Ibrahima Diouf jóge Touba di nuyu jóge ci dëkk bi yëpp Bamba kan ak ñi mu àndal leen nuyu yéen ñëpp vraiment kontaan ci seen euh, présence et puis maa ngi nuyu bu baax bien entendu la presse qui s'est bien mobilisée maa ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay ak ci seen patience Mon discours a été long, mais le jeu en valait bien la chandelle. Ma leen sant jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf.